ak mbooleem kilifa yi nga àndal yépp mën nañ cee seppi sëriñ Abdou Lahad juuf ak Cheikh Mamadou Bachir mu sëñ ma dem bi sëñ ma dem bi ak mbooleem yi nga àndal ñëpp ñu ngi sey waa kër di dee bég bu baax ci tànk yi ndax jëkkut tey ndax yàgg na mu ràññee la bu baax a baax ñu la fi daan yónni. ci màggalu sëriñ Abdul Xaadir boo dikkee mu gis yitte ji ak pëstéef bi taxawaay bi ngay indi booba sax xamagut dëgg dëgg na nga demee ci biir yoon wi waaye ràññee woon na sa taxawaay mooy li nga xam ne moom la njëkkoon a xam ci yow ñuy fàttaliku ci mille élection 2019 yi booba xatoon na lool waaye defoon nga yitte lool ngir bëgg gisanteek moom kon nag cofeel gi nga xam ne am nga ko ci moom ak jàpp gu dëggu gi xam nañ ko bu baax a baax loolu jiitu na mu xam ko bu yàgg la ca desit sa taxawaay gis nañu ko ak sa ngëm-ngëm ca taalib Serigne Touba noonu la war a mel mooy lu muy def rek mu jiital ci yitte ak pëstéef kon ñu ngi lay sant bu baax a baax. ca di la gërëm di fedd li kóllëre gi di fedd li cofeel gi di xam ne li nga doon ci yoon wi xam nañ ko ndax say waajur yëpp fii lañ lañ denc kon loolu rek doyoon na sëkk ci yow waaye yéemoo ci juddoo ko waaye da nga koo doxal nag ndax ñu